salay jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ab sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti laa booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari ba bayyi bari ñu nan ko kut ci lo ne ma ngi ci jamm rek mais kut yow ginaaw la nga dëkk wala mu ginaaw la rek sama ah. kër nga ngi fi si ginnaaw rek waaw xala bi tay di bëre di prince jëm ci combat dimanche ah. lan mo la bolok prince samedi samedi lay bëre samedi di moyen waaw waaw dimanche lay bëre dimanche ah, le 28 mbëru mag lay bëre na ndank rek mbëru mag lay bëreel parce que mbëru mag bu la mag rek mo la pexel waaw waaw lo la ko yedd mo sax yu defal ndank rek mom parce que mbëru mag la waaw te moom xale la quoi xamagul dara day jàng rek. day jàng waaw da def ndànk rek waaw. ba dimanche ak jàmm daal ko. da koy booy da koy daan samedi moom da koy daan moom. lu leer man mooy ne ku ku ñuy daan. yow yaa ngi jaawale bés yi de le 28 le dimanche. waaw waaw moom laa lay wax. waaw dégg nga maanaam man mooy ne ku ku ku dul daanu. waaw ah. laa demee moo ngi nii day daan rek. waaw. Ah. kookooy ku yaa dégg Mbaye ak Loum Ali wax naa la ko gars yi tey dañoo leeral fii ba mu leer. yaa dégg loolu dañ koo leeral ba mu leer ñii ñu ngi yéeg ci étage yi ñii yéeg fu nekk daal fu ne yaa ngi fa toog pour mën a seetaan yaa dégg noonu daa mel ni mbayang lu may wax loolu de ndaysaan kii moom gaynde la wala lan la ma ne ko kii gaynde la wala lan cey Sénégal boo demee foo Lion la de gaynde la de gaynde gaa ngi ñëw waaye gi gaynde de ëpp doole gi gaynde ëpp ma doole gaynde njaay mbara waaj ar momin ar gaay momin wa bidig bidig wa ban tumban wa naar ak tumban yow njaay man njaay yow prince man jokkel waa faru soraas waa adu saan rek a teg ak ko jox surtout ba mi na sooy toog gaynde guy lekk yabooy ak ganaar ndawalu xar gaynde guy naan sombek fonde di lekk cere gaynde gaa ngoog organisation moom parfaite na sarpa nga takk waaw Babacar waaw gis nga doone waaw sant yàlla bu baax dox na gis naa kay maa ngi sant bu baax sax ah, lii mooy sarpa euh, prince waaw waaw waaw prince rek doomu gi ginnaaw raay la quoi waaw waaw xam nga prince moom sunu rax la te xam nga rek te doonoo yàgg a taxaw la bu ñu lépp lu ma xewlee ñu ñu tax ci daan jokkeel am na solo mbokk ziar naa ah doo tudd man maa ngi tudd Aso. mais tey ni ngeen organiser affaire bi nii. affaire dafa dafa leer tey quoi. waaw gis nga sunu mbër moo ñu ko jaral sunu mbër moo ñu ko jaral presse moom lu mu dugg rek dañ ciy dugg moo tax ñu jaarale ko nii mu naaj moom lépp sunu lépp la di ko ñaanal yàlla may ko ndam si combat bi mu jëm mooy loolu ndax sunu waay la. mbég ci mais ñoom kontaan nañu. ndeysaan. bayyi bari ñu nan ko kut ci lo ne. ma ngi ci jàmm rek. mais kut yow ginaaw la nga dëkk wala. mu ginaaw la sama kër nga fi ci ginaaw rek. waaw. xala bi tay di bëre di prince jëm ci combat dimas lan mo la boole ak prince. samedi samedi lay bëre. samedi di moyen. waaw waaw. non lay bëre dimas le 28. morom mag lay bëre na def ndànk rek. morom mag lay bëreel parce que morom mag bu la mag rek mo la ko xel. waaw loolu la ko yedd mo chaque jour dafa ndànk rek mom parce que morom mag la waaw

Ya deg lolu dañ ko leral ba mu leer ñi ñu ngi yéeg ci état ci ñi yéeg fu nek dal fu ne nitam fa tok pour mëna a ya deg nonu da melni mbay ni lu may wax lolu de ndaysan ki mom gaynde la wala lan la ma ne ko kii gaynde la wala lan cey Sénégal bo demee fo Lion la de gaynde la de gaynde gaa ngi ñëw waaye gi gaynde de ëpp ma doole gi gaynde ëpp ma doole gaynde njaay mbara ar momin ar gaay momin wa bidig bidig wa ban tumban wa naarak tumban yow njaay man njaay yow prince man jokke waaye falu soraas waaye adu jom saar rek a teg a kon di yëpp maa ko sooy topp waaw waay gaynde guy lekk yabooy ak ganaar ndawalu xar gaynde guy naan sombeek fonde di lekk cere gaynde gaa ngoog organisation bi moom parfaite na mais tey écharpe nga takk de. waaw Babacar waaw gis nga. doone waaw sant yàlla bu baax. dox na gis naa kay maa ngi sant bu baax sax. ah lii mooy écharpe prince. waaw waaw waaw prince rek doomu gi ginnaaw raay la quoi waaw. waaw xam nga prince moom sunu rax la te xam nga rek te doonoo yàgg taxawu yoon la bu ñu lépp lu mu xewlee ñu ñu tax ci. waaw ñu ñu koy ñaanal def def ci jàmm mu daan jokkeel. am na solo mbokk ziar naa noo tudd yow. man maa ngi tudd Aso. mais tey ni ngeen organiser affaire bi nii. affaire dafa dafa leer tey quoi. waaw gis nga sunu mbër moo ñu ko jaral sunu mbër moo ñu ko jaral Prince moom lu mu dugg rek dañ ciy dugg moo tax ñu jaarale ko nii mu naaj moom lépp sunu lépp la di ko ñaanal yàlla may ko ndam si combat bi mu jëm mooy loolu ndax sunu waay la. bëgg ci yow. mais ñoom kontaan Ali nag wax naa la sax li la mbay ak lu may way. Meedu Mbaye groupe Sadio Sarr ak Khady Famine ñoom ñooy way boo koy dégg nag da ngay yaakaar ne Mbaye groupe mooy way ma bàyyi nag ah ambiance boobu xam nga li dafa neex ndeysaan Sadio ngi nii mogi nei, at budai ba tax waaye maqaama ba muy am bay jiite mbooloo moo koy sàkkul boppam dañ ah, ca baag waali njaay duy kanis na nga dem ay bii di Prince tey ah baax na daal daa mel ni moom la ñu bëgg de laa si mi seen na de cay lii te ñoom ci saret la nekk kat waa lii ndax wóor na tamit ambiance waaw xale bi kay macha allah presse bi daal am na mbooloo lool waaye nag ci làmb la jëm. ngi taxaw seen i a ngi noonu moo kagulu noonu Prince a ngi noonu kagulu Ali Diallo mu ngi noonu kagulu dalal na loxo yi sumal ma sa caméra bi aaway ah yokkal ma loolu Ali Prince a ngoongu Ali kagul buruus la sol daa gagul ala Siteu la ko def tey door na béjjën ba ca loxo ba béjjënu kooba ba waaye xale ginnaaw raay bi takk kurus pres njaago laa ilaaha illallaah eh, ee ginnaaw raay am nañu xale bu xew ci jamono ñu naan ko pres njaago deset bi mu sol open press bi moom nank rek xale ba wàcc ba de man de nit ñi dafa presse dugg fii ma jaaxal man gaa yaa ngi xàll bi àll gi àll oo oh, xoolal ay waay xale ya waay dinañ gaañ xale yi xale baa ngoog ñu boot dañu koo boot Ali dañ koo boot boobu ndax li na luñ dañu ko boot ko ma loolu dañu ko boot dañu ko

waay yow mi boot peles man yërëm naa la tey jëlal ma lii Ali jëlal ma lii Ali Moussa Ndeysaan xale baa ngoog ñu ngi koy sotti Ali ñu ngi sotti Ali ñu ngi sotti sa googu aali ñu ngay sumi dàll yay sansé ay dàll mu ay dàll aali sansel nañ ko dàll yu bees tik tik yu bees presse ñu ngi koy sansel ay tik tik yu bees mu ngoo muy sol tig tig ya su mi na yu màgget ya am na dal yu mu ëndaale ci géew bi bu leen yëqal bu leen may leen ñu tuuti waaye sansel nañ ko ay tig tig prince sansel na tig tig ya de l'adversaire na jokkel la yi le xale baa ngoog Será as képp ku dul mbër mën nga génn si biir waaye mbër beeg picc réew kese ba ngeen soxla si biir réew mi dara ko fi taxaw nag dinañ la génne waaw maigoro yaliyotuliwa kwani tembe vipacho kwenda biliana anam aja eh aja bila Hello, yes. Harold, guy, boy. Biokol na guy, boy. Biokol mo gi, wa ajo. Ajo nila, guy. Yun, yun, papagubo. Papagubo, nila. Papagubo. teew yëpp ku sa tur ak sant di nuyu tamit journaliste yi bu baax di leen mos a coono di nuyu tamit sama gars yi yëpp ak képp koo xam ne presse moo ko yëkkati tey rek maa lay jaajëfalaat bu baax di la nuyu di la jox sa wàccu waay di la mos a coono tamit di nuyu tamit waa Pikine bu baax a baax rawatina waa ginnaaw raay ak fépp waaye nekk tamit di bëgge Prince rek maa lay nuyu bu baax sa tur sa sant mais Prince boo ñëwee ci biir ginnaaw raay ne sunu mbër dafa am combat te combat bi def noo jara nga ñëw fekk ñëpp génn tey loolu nan fas yéene la gunge ci bisu le 28 loolu ban yëg-yëg nga ci am d'abord. waaw ba Abala comme lu may wax chaque jour rek wax dëgg yàlla gars yi seen fay waaw ndax fu nekk tamit lañ may taxawoo waaw di leen masa coono bu baax a baax ndax coono yi ñuy def ci man lépp gis naa ko waaw bu ma gesoo gis sama ginnaaw mbooloo bu toll nii ak ñuy bàyyi seen yite yëpp ndax man damay gën a yokk jëm parce que man xale bu ndaw laa. man làmb rek laa am te làmb rek laa bëgg di nuyu tamit sama moromu mbër yi nekk Pikine yëpp gis naa nuñ ma taxawoo rawatina mbëru Guinaw Rail gis naa nuñ ma taxawoo ñoom ñëpp waaw di nuyu yaat sama yaay bu baax sama papa di nuyu sama maam di nuyu sama maam Ablaye Diop di nuyu tamit képp koo xam ne rek kilifa presse nga maa lay nuyu bu baax di la woo si combat bi mais boo amee adversaire bu mel ni Jonkel ci expérience ci mën a bëri tey ñu ne combat prince bi mooy bokk na ci combat yi nga xamante ni am na fu mu ko mën a yóbbu ci làmb nga xam ki ngay bëri ci bëri ci xeex combat boobu naka nga koy préparé. waaw dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla bu baax combat yëpp combat la comme ni ma koy waxee dama am sunu écurie am sunu staff bu baax ñu may toppatoo ci anam bu baax maag sama maram mbër yi fa nekk. waaw man lu ma am xel ñaar si benn adversaire xale xale bu ndaw laa damay liggéey toll naa ni mbëri ku ma jàppale mooy loolu ma barki sëñ Mbamba amul lenn lu may xalaat si combat lu ma doon def dara du si wàññeeku dara du si wàññeeku Jokal nag champion la ndaanaan la wax dëgg yàlla may na ma loxo ba ma mën a bëreeg moom respecté naa ko torop mais bu at bi bi bokkatu si ñi ci xeex bi lañ koy jiife ci digganteem ak Jokal ndax prince xeex bi toujours dañ naan dafa des ñooñu ndax nan nga leen di wax est yaa ngi préparé ci xeex bi. waaw sant yàlla rek waaw kenn mënul combler waaw da ngay am lay manqué lee mais ñu ngi siy liggéey bu baax a baax waaw man ragaluma xeex ndax yàgg naa ba génn di bëri ji bëri dóor te boobu noonu xaajuma bay dugg arène te sama combat boo seetloo maa njëkk maa maay njëkk a dóor maay seet sa xeex bi ragaluma xeex. Babacar am na solo presse ñu ngi lay nuyu di ziar bu baax a baax di nuyu waa ginnaaw raay yëpp ak waa Pikine mu mel ni comme ni mu ko di ko bàyyi Balla waxee rek ngay bëri ci journée boo xam ne le 28 finalu kalaf la final bi mu mel ni sa combat ak ki nga xam ne moom mooy Jokkeel nekk na ci combat boo xam ne combat faar la bu ñu di xaar yow bu buñ la xoolee tey bi nga commencé làmb yàggul macha allah bi nga commencé yàggul fi nga nekk tamit di gox bi di Pikine ginnaaw yàgg naa mi ndaal ndax seen dëkk bañ ak yeneen i champion ñoom jët soo soq tey yow nga nekk xale génn nekk phénomène mën nañ ko waxee noonu ci biir Pikine rawatina ginnaaw loolu ban taxawaay xale bu ko loolu dalee ban taxawaay la war a mën a amee ci maanaam bés nii ak succès bi. waaw Babacar dañuy sant yàlla rek tey jii yooyu nga fi tudd yow wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ bàyyi nañ seen waar si làmb boo xoolee ñoom ñoo ñu inspiré ba ñu nekk ay mbër di leen sant bu baax di leen jaajëfalaat moo man bu ma du am xel ñaar sama adversaire. waaw bu ma xoolee si mbër yooyu noonu ak qualité mbër ñu bëreel am fu ñu ñoom damay kobeewaat si loolu rek jaar si waaw te bu ma gesoo gis sama ginnaaw waa ginnaaw raay Pikine ak fépp fu nit di bàyyeekoo amul lenn lu may xel ñaar si adversaire. Uh-huh. problème mu maanaam mbooloo mu bëri parce que damay dégg olof yi am na ñoo am na bopp yoo xam ne ay tac xaju ci. te mu mel ni presse fi mu nekk nii bu ñuy tànn xale yi ëpp mbooloo ci làmb wala phénomène yi làmb ji dañ la siy boole. tey mbooloo moomu noo ko mën a gérer ak ak ak noo koy dundee. waaw dañuy sant yàlla ñun ay Baye Fall nekk ay xale ndaw seeg ak ñëpp jàmm ku si nekk ñu joxal hum moom bëri na ñu fi teew tay ku si nekk am na fu ma jaar ak ñoom ndax lam boole boolewuñu di leen jaajëfalaat bu baax ndax ñoom ñoo tax may reyante gaa yu fi teew yëpp aw ma seen fay barki sëñ Bamba ndax bu ma leen xalaatee rek comme lu ma la wax même bu ma doon cinquante damay yokkaat cent muy cent cinquante. di leen jaajëfalaat bu baax. Jokkel Jokkel daan xale bari ci démb. yow ngay xale. te Jokkel nekk mbër boo xam ne bëri na ak ay sampe yu bëree bëri ci lamb hmm. nekk mbër waa di doomi séréer xam bëre lool miin ko nga war a jàkkaarloog moom. muy combat boo xam ne man nañ le ubbeekaay la war a doon ci yow. Hmm. boobu combat noo ko war a aborder la maanaam dimanche 28. man xale bu ndaw laa luñ ma teg dama koy tegoo di jaajëfalaat sama coach yi si mel ni coach Zo père Ndaw per Bongo di nuyu sunu waa écrit bu baax a baax di nuyu sama coach Codé day sonn si man ak Bamba raxu naar wax dëgg yàlla gars ñu ngi may jàppale si anam bépp. waaw moo tax comme lu ma la wax rek ak naar sama coach Souleymane Diagne ak képp koo xam ne da ngay sonn si duma am xel ñaar si benn adversaire comme nu ma ko waxee rek man xale bu ndaw laa xale yooyu ak Prince bokkuñu Prince jël dem rek la xam Prince jël dem rek la xam mais wax la li fi ne Prince est-ce pare nga pour affronter Jonkel est-ce que physiquement pare nga. waaw waaw yow. bàyyi baa la bu dee entraînement dama si am xel ñaar. bu dee entraînement rek du ma si am xel ñaar ndax wax dëgg yàlla damay entraîné ba ba sama sama jour repos semaine bi boo xoolee semaine combat normalement da nga war a récupérer barki sëñ Bamba ba nii maay entraîné damaa tooy chaque jour damay jot ak sama mag bi mu naa ma del dalu ak keneen a keneen ba sama coach zoo ndax xam naa lu topp sama ginnaaw waaw bu ma leen xalaatee rek damay damay gën a yokk jom di wax ne man affaire entraînement du ma si am benn xel ñaar ah, mais yàlla baax na mais kon ma la déggee bu baax mooy li nga du pour Jokal non lu ma entraîné pour du pour ndax Jokal taxul ma dugg si làmb waaw man làmb daa am fu ma teg sama bët te faa bëgg a si jàppale bu baax a baax ndax bu ma ñu si jàpp yëpp ku ci mel ne commandant bi sant kan mooy diriger sa diggante Jokal kan mooy diriger ah, daan defee rek comme nu ma ko daan defee si xel mu sell arbitre cible ma wàcc si tànk yi ma wàcc si yi rek comme noonu rek rek presse ak Pokola lu yàgg la sama doomu ndey la muy moom ak keneen ak keneen beneen sama mbokku mbër di encouragé Tukkal bu baax da doon sama doomu ndey la di ko encouragé di ko wax ne làmb noonu la lu si kanam mooy dàq waa di leen sant bu baax di leen gërëm bala xam na laa na laa lay wax waa ji comme noonu nu noonu defee ñu bëree di dër lañ koy jàppee daan ko barke maam seera bar wat� Amerika son mikro san mri sou ni wà lə waaw maa ngi nuyu sama mbokku njaago bu baax a baax di leen nuy bu baax a baax yi ma ci a njaago abuguma njaago di ko fuur di wax gaa yëpp si ñëw jàpp sama mbokku njaago yi di woo waa Guinée Bissau di woo tamit sama mbokku Mankagne yi di woo sama mbokku séeréer bu baax baax waaw di jaajëfalaat commandant bi gis nañ seen liggéey rafetlu nañ ko ak commissaire bi di leen masaw coono bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di sant sama mag Vieux Pape nga xam ne day sonn si man guddeeg bëccëg ma fiyaa Real bi waaw ak ku rek juum booy si yoon bi sama sëriñ maa si ànd Mbàkke borom Daaru Salaam di nuyu di nuyu tamit gars si jàpp yëpp autorité Pikine yëpp autorité Pikine yëpp maa leen maa nuyu bu baax a baax di leen jaajëfalaat di leen wax ñu gën si jàpp di nuyu Assane Pouye bu baax grand Assane Pouye Assane Pouye waaw di nuyu sama yaay Ndeye Ndiaye Tyson ak Abdou Aziz waaw Abdou Aziz Gueye président AS Pikine di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama nijaay Boko Zal Bambara di nuyu tamit képp koo xam ne rek day sonn si man waaw di tamit sama jigéen Marème Naar di ko encouragé bu baax a baax ma fi yaa mbooli mbooli bi yëpp di di sant di sant di sant capitaine capitaine baax Lamine Jabaate waaw ndax maa ngi moom yàgg nañ salariñ jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub Marème Diène waaye maam madame Njaay riw maa ngi may soow te ko mi soow booba danga siiw ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba maa dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay nay baree bari te